jërëjëf mbokk yi seetaan déglu seen biir wax ma indi leen gaam bio cité derme muy gaam goo xam ni dafay xeex ci lépp lu jëm ci wàllu ndox cité moo xam lu nekk ci biir moo xam lu génn ba ba ñu gis ko moo tax ñu daal di indi leen ñetti produit yépp muy ay antifongique muy tisane woo xam ni dangay jël un litre baxal ba mu bax nga jël kudd bu ndaw sotti bàyyi ba mu sedd nga segg filtré soo ndekkee nga naan ci kaas bu mag ak genn wàll soo añee ak soo reeree def ko trois fois par jour ba muy une semaine nga noppalu une semaine reprendre une semaine noppaluwaat une semaine. savon bi moom ngay farataal di sangoo deux fois par jour soo noppee crème bi nga diw ko ci yaram bi soo ko dee def mbokk mi seetaan déglu ndoxu cité dina la dimbali ba du la indil benn jafe-jafe. njëg gi nag nekk ci 10 000 francs mu ñaari junni nga mën ko am moo xam nga nekk ci réew mi ak ca bitim réew téléphone bi 77 244 98 05. ak garab gii di biocide derme bëgg nañu képp kuy ñuy seetaan am